أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ixwatal iman asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suura yuusuf ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñuy jël tey juróom benni aaya aaya 62 63 64 65 66 67 juróom benni aaya yoo xam ne sunu boroom subhanahu wa taala lim ñi ciy jàngal mooy ñeenti mbir ba ca jiitu mooy bayaan mada tawakkulu yaqub ala llahi wa siqati wa siqatihi fi rabbihi aza wa jal wa maarifatihi bi asmaihi wa sifaati wa kayfa la wa huwa ahadu anbiyaa illahi wa rusulihi alayhim assalaam mbokk yi bokk na ci li ñuy jàng tey ci saar bi ci aaya yi mooy gis yonent boobu tudd yaqub alayhi salaam wàkkirlu gi mu wàkkirlu ci boroomam ak kóolute gi mu am ci yàlla moo tax ab jullit dundam du am barke dundam du mën a baax lu dul dafa wàkkirlu ci yàlla ñaata aaya lañ gis ci alquran yàlla di ñu wax wa ala llahi falyatawakkalil muminuun fa tawakkalu ala llah in kuntum muminin wàkkirlu leen ci yàlla su fekkente ne gëm ngeen yàlla wàkkirlu leen ci moom ñaata yoon lañ koy gis kon jullit dina bokk ci li baaxal dundam mooy muy wàkkirlu ci yàlla muy jox yàlla boppam mu dénk yàlla boppam ba ca tegu mooy mu am kóolute ci yàlla mu wóolu yàlla tey sunu problème lu gën a rëy mooy amuñu kóolute ci yàlla kenn ci boroom xam-xam yi nee na dañuy dugg avion mu nekk ñaata ñaata nit yu ci nekk yenn saa yi mu nekk 500 personnes ñooñu ci biir 500 personnes yëpp benn nit lañu wóolu moom lañ jox seen bopp muy kan ah muy capitaine avion bi pilote bi ñëpp moom lañu wóolu su nee takk leen ceinture yi ñu takk. bu nee lem leen seen tànk yi ñu lem bu nee fay leen portable yi ñu fay buñ duggee ci bato bi bato bi ñaata personne ñoo ci nekk ah ñoo ñëpp kenn lañ wóolu moom lañ jox seen bopp ci biir géej gi ci biir bato bi bu ñu taalee rajo yi commandant de bord bi jël micro bi lu mu wax rek ñëpp loolu la ñuy def su ñu duggee oto ñi ci biir oto bi yëpp kenn lañ wóolu mooy kan muy chauffeur bi walla xoola àddina bi nu mu toll oto àdduna bi kenn moo koy piloté te kenn wóolu ko te mooy yàlla te ñee ñëpp wóolu nañ leen dégg ngeen li ma wax la déggu leen ko oto àdduna wala avion àdduna wala bato àdduna kenn moo ko yore mooy kan ah mooy kan yàlla mais wóoluwuñ ko pourtant wóolu nañ borom bato bi wóolu nañ borom avion bi wóolu nañ borom oto bi mais lu tax borom àdduna bi wóoluwuñ ko moo tax jullit bokk na ci lëfar dundam mu mu wóolu yàlla comme Yaaxub ni mu wóolu woon yàlla waaye dafa xamoon tur yàlla yi asmaihi wa sifaatihi bokk ci tawxiid nga xam melokaanu yàlla yi nga xam turi yàlla yi li ko waral nag mooy kenn la ci yonent yi nga xam ne yàlla daf leen tànn daal leen boole ci ay ndawam ñaareel bi mooy jawaaz ahadul ahadil mu akkat dagan na jullit di signé pacte di jël contrat ci ay mbir yu ndaw ak yu mag donte ne sax ki ngay signeel contrat ki ngay signenteel pacte daf laa jege sa doom la wala sa papa la wala sa mbokk la comme ni ko Yaaqub defe woon ci ay doomam bëgg na doom yi respecté li ñu wax ak moom mu ne leen foog maag yéen ñu signé benn pacte boo xam ne sunu boroom moo koy seede loolu nag dagan na nit ñëw di la leb donte ne ku la jege la wala nga koy dénk dara gis ngeen aaya bi gën a gudd ci alquran lan la ñuy jàngal mooy mbirum bor fa iza tadaayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubu fal yaktub yàlla mu ne nañ bind kaatibun bay na ko pour lan pour ëllëg moo tax ndax dund dafa am dee dafa am teew dafa am absente dafa am su boobaa bu fekkente ne amoon na pacte nit ñi dinañ mën a am fu ñu référé wu fu ñu dellu ba mbir yëpp mën a leer ayuhal ahbab mu ne loolu walaw kaana aqraba nnaas kal abnaa masalan donte ne ay doom lañ yaa leen jur dagan na ci sharia nga jël ci ñoom ahd boobu al muakkad ñetteel mooy la baasa bi taxwiif al mumin min isaabati al ayni wa axzi al xiit lil wiqaaya minha araamul lu dagan la jullit ragal cat wala mu ragal bët léeg-léeg nun dan naan ay cat yi ay affaire yooyu amul ay bët amul ah kay sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax al ayn xaq ba dëgg la nit mën na xool mbokkam rek mu lor ko léegi nag la lay moytandikuloo loolu da nga ko war a xam te di ko def suñ nee la lay moytandikuloo loolu da nga koo xam te di ko war a def mooy ñaan yi la alquran indil ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga moytandiku bu baax ci bët nga protéger wu ci yonent bi daana ci ñaan di moytandiku làqatu ci yàlla même boo amee doom sax dañu ne doom jooju bokk na ci li nga koy ñaanal auzuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma bëta ngok ma atiqaadi anna zalika la yughni min allahi shay loolu yëpp nag ngay def ñaan yeeg lépp jàng yeeg mooy tandi ko yëpp nag na nga xam ne yàlla rek mooy musalaate nag donte ne da nga war a def sababi mais yàllaay musalaate wa anna alhukma lillah yàllaay atte yàllaay dogal yàlla lu mu namm kenn mënu ci dara innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yàlla bu nammee dara kenn mënu ci dara yàlla mu nammee bët moo lay rey bët moo lay rey bu nammee oto moo lay rey oto moo lay rey bu nammee ci sa kaw lal ngay dee ci sa kaw lal ngay dee yal na yàlla yërëm Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhu wa ardaahu keroog ba mu nekkee ci sukuraat saxaaba yi wër ko dafa wax ju rëy mu ne tàppet yàlla na dee ragal yàlla na dee mu ne man mi maay xaalid ibnul walid yéen ñëpp xam ngeen ma ma la yonent bi tuddee woon sayfullahi l maslul jaasi yàlla ju ñëw ji mu ne sama yaram bu ngeen ko xoolee fu ñu cawul jaasi rek jam nañ fa xeej wala fet moom yaram bi noonu la meloon pour ngeen mën a dégg yaram bi dafa meloon ne yére baay faal fu ñu dóorul jaasi jam nañ fa xeej wala jam nañ fa fet yaram bi yëpp dañ ko dabba daa xewoon mu ne mi maa ngi nii doon yaakaar ne damay dee ci toolu xare waaye tey maa ngi nii di dee ci sama kawlal kon ku ragal doo texe ëllëg foofu muy wax loolu mu dégg fas yi daal di yuuxu ci fenêtre néegam mu ne fas yooyu fu ñu jëm fekk dafa feebar saxaaba yi ko waroon ne ko fas yi dañuy jottali ci kàddu yàlla mu yuuxu jóg taxaw jël jaas yi mu daw ba ci buntu kër gi foofu la daanu dee daanuwul daal deewul ci kaw la la ma ci buntu kër gi la dee parce que doon daw di dabi fas yi allahu akbar xoolal waaju mel noonu xoolal kooku lim liggéey day néew ci téere fiq yi wala téere hadis yi nga gis ci an Xaalid ibnul Walid hadis ndax bëri na lu ngeen ko gis Abu Hurayra ñaata la Anas ibnu Malik ñaata la Abu Bakar Ali Ousmane ñaata la mais Xaalid ibnul Walid moom noonu moom front ba la nekkoon moo tax talul toog fii ci wetu yonent bi di mokkale xadis moom ca terrain wala nekkoon moom fi bopp yi di daggee loxo yi di dagg deret di tuuru moom foofu la nekkoon da doon wax ataytukum bi qawmin yuhibuna al mawt kama tuhibuna al xaya gis ngeen ñii nekk sama ginnaaw yéeféer yi lay waxal xanaa bu sa saxaaba yi ràññee moom mooy nekk ci kanam mu ne gis ngeen ñii nekk sama ginnaaw gaa yi naa mu ne yéen yéeféer yi ni ngeen bëggee dund ñii noonu lañ gëmee dee waaye yéen dund ngeen bëgg ñii tee lañ bëgg kon ñii kenn mun leen dékku mbokk yi ñu yëg ne annal hukmu lillahi wahdahu yàlla dong moom moom atte moom kenn kenn loolu tax yenn ci borom xam-xam yi di wax dafa bokk ci tawxid alxaakimiya ndax atte dañ ko war a jox yàlla gis ngeen àddina bi tey bi ñu jëlee atte jox ko ay nit lu ngeen gis kumba am ndey ak ñoo xam ne dañ leen a protéger ak ñoo xam ne bu ñu sëqatee sax ñu yóbbu leen ci kaso yi tëj leen mu ne wahdahu fi xalqihi la sharika lahu fi zalika yàlla donc moom moom atte ci jaamam yi kenn waru ko cee bokkaale leen yàlla nag bu attee dara loolu mooy am ci sa kaw bu yeboo nga nangu li yàlla atte dafa bokk ci iman al imaanu bil qadari xayrihi sharrihi moo tax noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu lépp lu mu dogal sunu kaw yàlla na nekk lu neex lu nuy nangu mbokk jullit yi ñeenteel mooy wujubu tawakkalu ala allah wàkkiiru lu ci yàlla dafa war ci ab jullit wujub suñ nee wujub mooy fard la dafa war wakkiirlu nag ak tawaakul du benn wakkiirlu mooy nga jox yàlla sa bopp tawaakul mooy nga yàccaaral wakkiirlu mooy nga jóg uti liggéey tawaakul mooy nga yàccaaral te dina law naan yàlla dina ma jox ma lekk wala dina ma jox ma naan tawaakul mooy nga feebar dem faju ji tawaakul mooy nga tëdd naan yàlla dina ma faj du benn yàlla boo wakkiirlu ci moom da ngay dem defi geste yi defi mbir yi doo tëdd dina law benn waaye indi na gëleemam Medine yonent bi seen gëléem gi muy wër ci biir dëkk bi yonent bi waa gëléem sàngam bi ku ko moom ñu ne diw mu ne ko diw doo yeew gëléem gi mu ne ko tawakkaltu alallah mu ne ko aqilha summa tawakkal yeew ko ba pare nga wakkiirlu comme gëléem gi mu ne man mu ne ko doo ko yeew mu ne jox naa ko yàlla dina ko garder mu ne ko non da nga koy yeew ba pare dénk ko yàlla ah da nga koy yeew dénk ko yàlla loolu mooy tawakkul mbokk jullit yi loolu ñeenti tomb yooyu ci lu gàtt yépp على سيدنا محمد mooy mbir yoo xam ne moom la ñuy jël tey ci sunu dars ma bàyyi incha allah cheikh bi mu jàngal ñi ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا إلا أن يحاط بكم فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون barakallahu fik صدق الله العظيم jazakumullahu xeyran sunu boroom subhanahu wa taala mu ñuy fàttali ci saar bi mu ne fa lamma raja'u ila abihim ba ñu dellusee jëm seen baay fan lañ jógee ah Égypte lañ jógee lan moo leen fa yóbboon jëndi lu ñu lekk nattu am na àddina bi kenn amul lu ñu lekk lu dul waa Égypte lu tax buur baa géntoon gént ba Yuusuf firi ko mu dénk ko économique réew ma def ko ministre bi yor mbirum mbay mi Yuusuf organiser dëkk ba organiser lekk bi bi jamono mettit bi jotee nga xam ne lekk amul fenn fu dul foofu nit ñi daal di takku jëm fa ci la doomu Yaaqub yi dégg foofu moo am lekk ñu daal di takk seeni bagage utali fa ban demee buur ba dalal leen waaye ci histoire yi xam ngeen ni am na lu xew sa digganteem ak moom moom xam nañu ay frère am lañ waaye mu ne patt noppi defal na leen teraanga boo xam ne wax dëgg yàlla suñ demee laa budda il faut ñu ñëwaat ndax nit moo yor jikko boo xam ne fu ñu koy defal mbaax dootu fa gëjati am na sama benn cousin da daan jóge Fuuta di ñëw Dakar suñu yaay am na fu muy dal ci suñu kër famille yi ñooñu defal ko taraanga jëndal soxnaam ay yére jëndal ko ay bagage jëndal ay doomam may ko xaalis bu bëri mu def tournée ci famille bi yëpp ñu may ko mu dem mu def ko benn année mu neex ñaari année mu neex ñett année mu neex ñeenteel année bi rek mu buub waa këram yëpp may ay bagage yu néegam maye lal bi tëj ko daal di ñëw Dakar ne mi arti Dakar gars yi da ko aru ba maa rutata umoon a daatu lal ba sax da koo maye moom jàpp na ne fii daa neex rek comme bu ñëwee dafa war a tëdd mu ñëw gars yi ne ko non non non non delluwaatal fa nga jóge woon ndeysaan fekk xale bi dafa ëmb ba mais noonu la ko gars yi buube waatee mu dellu moom lan moo taxoon mu def li mu def mooy teraanga yi mu yàgg gis mu yaakaar ne su ñëwee buum njaboot gi rek terminé e gars yi ne ko déedéet nag gan nag moom nga koo teral waaye ba ki dëkk moom te ganal trois jours dong la ganale falamma rajaw ila abihim ba ñu dellu see dem ci seen baay yi ñu nettali ko mbir yi ba pare nag ñu ne ko qaalu ya abana a yow baay booy mu ni minna al kayla na nga yëg ne kat danañ ñu xañ nat suñu delloo deuxième fois kenn duñu jaayi kenn duñu nattal loolu moom bu yeboo nga def nga xam ko yow pap nga bañ ko ignorer ah mës ngaa gis ngeen jóge ci nit mu teral leen si portable yi s'il vous plaît ngeen def ko vivreur seen portable yi def leen leen vivreur ndax dañuy enregistré si daf koy yàq mbokk yi ñoom dem nañ jaay nañ leen defar nañ leen teraanga ñëwaat nañ waaye indaale nañ benn condition mooy bàyyi su fekkee dañoo nar a delluwaat kenn duñu jaay kon papa ji dina wax lu xew ak teraanga gi ñu leen defal yëpp ngeen nar a delluwaat kenn du leen jaay lu xew ñu ne ko buur bi nee na bu ñu indiwul sunu frère bi ñu bokkal bàyyi dootuñu jaay xanaa Yusuf moo leen wax ne enquête na leen moom bi mu leen gisee xam na leen xam na ne am na seen benn doom baay bu ñëwul laaj na leen nee nañ kooku mi ngi fa mu ngi dund mu ne leen nag deuxième fois pour ngeen ñëwaat fi ma jox leen fa ngeen ànd ak kooku ndeysaan may rakkam Binyamin ñoom ñaar kese la seen yaay am ñuy nekk ñaari doom yu góor Yusuf mooy taaw moo tax ñu ne yàlla mu ne fa lamma raja'u ba ñu delloo ilaa abihim seen baay qaalu ne nañ ko yaa abaana yow baay muni'a minna al-kayla tere nañ ñu natt xañ nañ ñu nee nañ dootuñuy nattal mukk lu dul dañoo ànd ak sunu frère kon léegi lu ñuy def fa arsil maana axaana yónnil sunu frère bi mu ànd ak ñun nak tal ndax ñu mun ñoo peeseel naxsil alal kaylil matlub jaay gi ñuy def jënd gi ñuy jënd buur bi nee na bu ñu àndul ak sunu frère boobu dootuñu jaay dootuñu nattal dootuñu ko jege kon nag wax nañ la information bi bëgg nañu bis bu ñuy dellooti suñu rakk ji nga xam ne mooy toog di la wéttali nga bàyyi ko mu ànd ak ñun ñoo ngi garanti wa inna lahu la xaafizun li wóor te mbir mooy nun danañ ko wattu lan moo ci indi lii lépp ah lu tax lii lépp ñu wax ko mooy dafa am lu njëkk lu fi romb ba confiance bi bëgg a dañ ñu bëgg a garanti seen papa ne ko incha allah nun dey lan daloon lu njëkk dootuñu dalaat lan daloon lu njëkk ci kan ci yusuf alayhi salaam mais bii paa moom ñoo ngi lay garantil di la assuré ne wa inna lahu la xaafizun noonu incha allah danañ ko wat qaala hal amanukum alayhi ay ndax wóolooti naa leen ci kii allahu akbar ndax wóolooti naa leen en tout cas ni ngeen yëg ni na ma leen wóoloo woon ci Yuusuf ba tey rek noonu laa leen di wóoloo illa kama amintukum ala axi ko confiance bi ma leen waxoon bi ngeen di ànd ak keroog Yuusuf man leen seen rakk la ah ni ngeen sàmmee seen bopp sàmm leen ko ni ngeen toppatoo seen bopp toppatoo leen ko ndax moom moo gën a tuuti ci yéen noonu ma defoon ci kële tamit noonu laay defaat ci kii rek kii tamit seen rakk la su ngeen ko sàmmee sàmm seen mbokk bu ngeen ko yàqee yàq seen bopp moo tax nit du yàq mbokkam ah su ngeen gisee alquran mbooleem fu muy wax di dànkaafu nit même yonent bi bi ko yàlla yónni ci ñun dafa ne laqad jaakum rasulun min anfusikum bi yàlla di tere nit jëw dafa ne a yuhibbu ahadukum an yaakula lahma axi sa mbokk yàlla bi mu ne dafa sàkkal nañu jabar lan la wax yàlla bi muy wax indil naa sàkkal naa leen jabar man yàlla maa utal jabar ci suratu ah wa xalaqa lakum min anfusikum gis nga ci seen bopp man a sa soxna sax ci sa bopp la bokk kon nag keneen waxi noppi ixwaan yi mu ne leen na ma wóoloo woon bu njëkk ba ci jox leen confiance noonu laay defaat kii illa kama amintukum ala axiihi min qablu li ma waxoon démb ci yuusuf loolu laay waxaat tey ci benyamin mii fallahu xayru xifzan wa huwa arhamar rahimin yàlla moom moo dàq sàmm ñëpp al noonu yàlla sàmm wa huwa arhamar rahimin yàlla tabaraka wa taala yërmande gi mu dencal jaamam yi kenn denc ko ndax kuy yërëme yàlla la dàq yërëme yonent bi alayhi salaatu wasalaam séen na benn jigéen bu uuf doomam di ko nàmpal mu laaj mu ne ndax kii bu ñu ko demoon jëlal sa doom ji sànni ci safara ndax dina ko def saxaaba yi ne déedéet mu ne yàlla moo ko gën a bëgg doom ji yonent yàlla Muusa alayhi salaam bi mu ñaanalee Qaaruuna suuf si di ko wann yàlla moo ne Muusa moo ne xaa yow yàlla boo fi bàyyee Qaaruuna dina sànk jaam ñi yàlla mu ne Muusa jox naa la ndigal ci moom loo bëgg rek mooy am Muusa mu ne suuf si wann ko suuf si di wan xaaruna di wan xaaruna xaaruna di yuuxu di jéggalu Moussa xaaruna di yuuxu di jéggalu Moussa xaaruna di yuuxu di jéggalu Moussa ba kenn gisatu ko suuf si wan na ko yàlla mu ne Moussa yaa soxor ah Moussa mu ne yàlla du yow yaa ma jox ndigal nga ne lu suuf si lu ma bëgg mooy am mu ne waaye xoolal lu mu la ñaan yépp nga bañ koo may man bu ma ñaanoon benn yoon ma may ko ma baal ko man bu ma baaloon benn yoon ma baal ko jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ci hadis Bukhari benn waay boo xam ne musul jaamu yàlla dundam yépp daf ko foog bi mu ñëwee bay dee mu tiit mu xam ne day dem safara mu bañ yàlla lakk ko mu bañ yàlla dekkil ko mu woo doom yi mu ne leen ban baay laa ci yéen ñu ne ko baay boo xam ne mat nga baay musuñoo xiif musuñoo mar dara musul manqué lépp lu waral ak ñun def nga ko mu ne dama am mission bu ma leen bëgg a sant ñu ne ko bismillah mu ne bu ma deewee ñu ne ma mu ne da ngeen dem ci àll bi ngeen taxan matt mu bëri ngeen ñee ngeen teg ma ci kaw matt bi ngeen lakk ma ba ma nekk doomu taal doom boobu ngeen xaaj ko ñaar lenn li ngeen jël ko def ko ci paan yóbbu ko ci géej gi yëngal ko mu seey leneen li ngeen dem ci montagne yi xëpp ko mu nekk ngelaw mu naaw ñu ne ko papa lii nag mu ne damaa bañ yàlla dekkil ma di ma laaj ndax bu ma dekkee rek safara laa jëm bi mu faatoo xale yi daal def loolu daal dem taxan matt teg ko ci lakk matt yi ba mu nekk dóom ñu diviser dóom bi deux lenn li ñu sànni ko ci géej gi lenn li ñu def ko ci ngelaw li yàlla mu ne ko kun fa yakun mu taxawaat kanamu yàlla yàlla mu ne ko waaw yow li nga def lu la ci dugal yow jaamu woo ma ba pare ngay deewaat ne nañ la lakk def la nii nangam ne da nga yaakaar ne loolu mun na laa raw du yaa ngi nii day taxawaan nga sama kanam loolu la ci dugal mu ne yàlla damaa ragal dajeeg yow rek ndax xam naa ne du baax yàlla mu ne ko maadaama ragal nga dajeeg man rek baal naa la dama nga dugg àjjana kon sunu borom subhanahu wa taala du hasard mu ñuy wax laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamia wa innahu huwa waaw waxal sama jaam yi waxal sama jaam yi qul li ibadiya allazi asrafu ala anfusihim waxal sama jaam yi nga xam ne découragé nañ déedéet ne leen déedéet laa taqnatu min rahmatillah doomu aadama yàlla dina ko baal fekk jant bi xëyul génne fii doomu aadama yàlla dina ko baal fekk xor-xoriwul fekk xor-xori woo rek yaa ngi ci sens bu rëy ndax yubaddilullahu sayyiatihim hasanat waxuma yàlla baal la li nga doon def mais lu bon li nga doon def moom la yàlla defaat tiyaaba lu bon li nga def yëpp mu defaat ko tiyaaba yu baddil la wax ka baatu tabdil mooy changer ah yàlla day changer bakkaar yi tiyaaba waaye dafa am temps am waxtu nag da ngay gaaw balaa waxtu woowu jot man ak yow yëpp ñu gaaw balaa waxtu woowu jot yàlla mu ne fa lamma fatahu mataahum keroog bañ demee ba ñu ubbi mbuus yi ubbi ubbi saag yi nga xam ne moom lañ demoon jëndi wajadu bidaatuhum ruddat ilayhim ñu fekk kenn ku nekk ci ñoom xaalis bi nga joxe woon pour jënd dañ laa peesee loolu ba pare daal di jël xaalis bi wàq ci digg bi dugal la ko fa bu doon 2000 la nga fekk afta 2000 yi wala 3000 ku ubbi rek gis yëfam loolu nag stratégie la pour pour lan pour ñu mën a ñëwaat waa ji waa ji napp yor 11 day jël weñ gi sànni ko noonu ci biir géej gi wala wala balaa muy sànni weñ bi dafa am lu mu ci def ah dafa am lu mu ci def olof yi nu ñu ko tuddee meet lan mooy meet meet ci olof mooy lan mooy lu lay xëcc pour nga ñëw yor la ba ni la teeb jàpp ndeysaan ñoom tamit dañ leen a meet dañ leen a jaay ba pare delloo leen xaalis bi pour bu ñu demee ñu mën a mais ñoom xamuñu loo xew ndeysaan bi ñu ubbee ñoom ñëpp seeni mbuus lan lañ gis wajadu fekk nañ ñoom ñëpp gis nañ bidaatuhum ruddat ilayhim ñu fekk seeni xaalis seeni njëg delloo nañ leen ko ndeysaan qaalu ya abana ñu ne eewoyu bàyyi ma nabri haasi bidaatuna lan la ñuy utati ay shay'in nabri lan yow léegi yow lan ngay xaar rek pour bàyyi libérer Binyamin mu ànd ak ñun léegi lan mooy ki- xoolal kii waxuñu jaay nañu sax waaye def noo delloo sunuy njëg la ñu doon bëgg sax def nu koo delloo ruddat ilayna delloo na nu lépp bis boo libéré xale bi nu ànd ak moom wa numiru ahlana wa nahfaz axaana dana nu yokk ci sunu dund kër gi ration bi waaye danañu sàmm sunu frère wa nasdaadu kayla bair danañ yokk mbaam biñ doon dem fukki mbaam ñoo doon dem tey bu ñu demee ñaata lay am fukki mbaam ak benn benn mbaam dana yokk ci kër gi dundam wa nasdaadu kayla bair danañ yokk benn mbaam kon bi ñu doon dem ñoom lan la ñuy yëg ah gis nga de ay doomu yonent waaye gis nga seen waruwaay yóbbuñu ay gëléem yóbbuñu ay fas wala ba ñuy dem fas wala mbaam wala gëléem yooyu lañu war allahu akbar ñun tey lan la ñuy tiitaroo duñ war mbaam yàlla mu ne zalika kaylun yasir loolu day natt bu yomb la alal malik jaay leen may leen delloo leen loolu waay waa ji naan jaay la may la lebal la fàtte laa fayeeku kooku am na de ah allahu akbar waaw ndeysaan zalika kaylun yasir alal malik loolu de lu yomb buur bi la ndax buur bee ko am li ginaahu fala yadur fala yadurruhu an yazidana hamla bair Macky Sall tey mu may la un million ndax xam na lu mu koy jëriñ lu mu koy wàññi kenn ñun fi Macky Sall ne ko kaay mu ñëw ne ko un million ngi nii dafa am lu mu koy wàññi ah du ko wàññi tus xam nga ne mu ngi mel ne rek jël benn porte daal sotti ci biir géej gi voilà imaam kay mooy lay may léegi cent franc naan si te te man fonde laa ko bëggoon jënd xaw ma woon ne xaw ma weccit waaye Macky Sall may la un million wala deux millions wala cinquante millions du ko teree reer nañu wax dëgg kon buur bi tamit yokkal leen benn charge mbaam du ko wàññi tus ndax moo yor mbir yi ndeysaan qaala lan ursilahu maakum hatta tutuni mawsiqan min allah du ma libéré xale bi yónni ko mu ànd ak yéen lu dul da ngeen ma indil benn garantie boo xam ne ci yàlla la bàyyeekoo mawsiq min allah kenn ku nekk ci yéen dana volontaire garanti digganteem ak boroomam ne bu demee xale bi dina ko sàmm xale yi kan la ñuy waxal seen pap te terewul gis nga seen papa laaj na leen lan garanti kon nga am ku jege mu laaj la garanti sa doom laaj la garanti yow papa ji wala papa ji laaj wala wala wala wala loolu dagan la ci charia dara nekku ci parce que mu ngi nii garanti gi nag lan la mooy la tuttanna bihi di ngeen ma ko di ngeen ma ko indilaatal fii illa an yuhaata bikum lu dul ñu encercler leen encercler leen xeex ak yéen nangu ko yóbbu ko bu du loolu na ngeen gëm ne da ngeen ma kaa war a delloo sil fii ci sama kanam ndax kat loolu la ñu wax ci kanamu yàlla loolu la ñu signé man ak yéen mbiru yàlla nag kenn xamul fu muy dogalee ndax doomu aadama day bëgg yàlla mooy dogal yéen ñi jàng tubaab yee naan l'homme propose Dieu yow li nga bëgg rek ngay def waaye yàlla nag moom moom ndogalam yàlla lu ko neex def faalun lima yurid waaw laa yusal amma yafal wa hum yusalun yàlla kenn du ko laaj lu tax ngay def nangam waaye doomu aadama ëllëg lu mu def yàlla laaj ko ko yàlla nag lu mu def kenn du ko laaj mu ne fa lamma atawhu mawsiqahum bañ demee nag ba waxtaan ak góor gi ba convaincre ko ba jox ko garantie bi qaala allahu ala ma nawa ma naqulu wakil moom tamit nag donte ne xale yi indi nañ ko garantie am na ci ñoom confiance léegi am na ci ñoom kóolute te rewul mu daal di jël yëpp dénk yàlla gis nga de ah waxu leen waa léegi affaire bi baax na rek dem leen déedéet dafa jëlaat mbir mi delloo yàlla ne qaala allahu ala ma naqulu wakil mu ne leen li ñu wax ni ñu ne waaw mu ne yàlla mooy seede bi yàlla mooy wakil bi yàlla lañ ko dénk yàlla mooy témoin yàlla moo koy surveiller allahu akbar bañ demee nag ba waxtaan kër gi yëpp juboo nañ Binyaamin day dem takk nañ bagage yi ñu ngi delluwaat deuxième vague bi moom Yaaqub gis na leen ni ñu bëree ay doomam lañ ñoom ñëpp moo leen jur mu leen di dénk moo tax jaadu na léeg-léeg ngay dénk sa njaboot surtout buñ jëmee ci ay nit léeg-léeg nga gis nit koo xam ne li ko lor mooy mbooloo mi mu jib ba mu nee tëll ñu ne ko jan rek pare na te nit ñi yemuñu yaram yi yemuñu bët yi yemuñ làmmiñ yi yemut loolu tax xataa ci sunna yonent bi ne boo jibee mbooloo nga ragal leen waxal allahuma inna najaluka fi nuhurihim wa nauzu bika wala nga ne allahuma ak fii nii charrahum bi maas dañu jib ay policier chauffeur bi tiit daan ne laa ilaha illa allah ma ne ko waxal allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'uzu bika min sururihim mu ne moo ngi daw mu ne loolu nan laa koy waxee ñu daal leen di romb man ko gis rek mu ne ma bindal ma ko bindal ma ko bindal ma ko maanaam ñaan yi ñuy bàyyi chaque jour loolu moo ñuy indil problème te yonent bi lu nekk rek jàngal nañu ñaan amul lu yonent bi bàyyi gis nga fii nu toog nii kenn ci ñun na wax nangam ndax yonent bi jàngale na ñaan bi wala waxu ko yonent lépp la jàngale amul lu yonent bàyyi sunna yonent bàyyiwul dara ñun kay ñun ñooy gàttañlu ñun ñuñ loo ñun noo doylu waaye yonent bàyyiwul dara ni mu la jàngalee ñaan boobu la la jàngalee booy yéeg ci oto booy yéeg ci nangam la la jàngalee booy tëdd boo yeewoo booy dugg toilette boo génnee booy booy booy ba bàyyiwul dara amul ñaan bu yonent bi jàngale woon jàngale na ba jàngale na booy jënd oto sax ñaan bi ngay wax balaa nga koy jënd ah wala bu dee fas la wala bu dee mbaam la wala bu dee ñaan bi ngay wax kon kooku dina la bàyyi lu rëy ku la jàngal ba jàngal la kon du bàyyi leneen lépp lay wax waaye ñun ci suñu bopp Yaaquba tiit na mboo doomam yi ndeysaan ñoo ngi dem nekk nañ mbooloo bañ na fu ñu waa ñi yéen bëri ngeen de ñii ñëpp Yaaquba leen jur te am na ci nit ñoo xam ne dañoo garaaw de yéen ñii ñëpp imaama leen jur da ngay gis sax kenn koo xam ne ii kii moo nuroog papaam nit bu nuruwul papaam ku muy nuru ku nuroog sa papa kay tooñoo mais nit ñi dañoo bëri wax ay yow sa doom ji nuroog na ak papaam de waaw waaw léegi yow doom bi kay bu nuroo woon ak keneen kay dañoo war a tuumaal ndaw si mais c'est que doomu aadama yi seen làmmiñ yi laa ilaha illa anta subhanaka am na ñoo xam ne seen làmmiñ yi comme bal loolu ndax ndeysaan bi ñu nee dañuy dem Yaaqub di leen dénk yàlla di leen moytandikuloo xaala yaa bunayya mu ne leen yéen samay doom laa tadxulu min baabin waahid bu leen dugg benn porte yéen ñëpp ngeen groupoo nii ak seeni gëléem ak seeni kii ak ñu gis leen dañ naan waaw ñi fuñ jóge ñii ñooy ñan kon su ngeen jibee ba digg dëkk bi tasaaroo leen na ñii jaar ni ñii jaar ni ñii jaar ni xanaa ñaari nit moom boo leen gisee ñuy dem du la jaaxal waaye mbooloo mbooloo moom foo leen gisee taxawaat di xool loolu la yàlla def mais benn nit ñaari nit ñetti nit suñ la rombee peut-être mën nga ci bañ a bàyyi xel surtout ñoo xam ne ay gan lañ étranger lañ dëkkuñ ci tey jii boo toogoon fii rek nga gis ay ay kaw-kaw yuy wàcc yor ay mbaam jaar nii di dem ñoom ñëpp groupe looy wax foog nga taxaw naan waaye ñii ñooñu ki ñi fu jóge waaye seen mbaam yi nag waaye ñii li ñuy def nii foog nga commencé di wax léegi nag moo tax mu ne leen bu leen dugg benn bunt wa duxulu min abwaabin mutafarriqa dugg leen ay porte yu wuute na ñii jaar nii ñii jaar nii bi mu leen waxee loolu ba pare nag mu ne leen dama leen dénk yàlla rek de dama leen di conseiller kese waaye wa ma ugni ankum min allahi min shay yàlla lu mu nar a def seen kaw mënuma ci dara mais nag dama leen di dénk kon yenn saa yi tamit nga gis koo xam ne dañ naan ko moytul lii mu naan waay waay waay loolu de bi daa lool boo koy def di dee ñu lay moytandikuloo dara moytandikul par exemple olof yi dañu ne ndox moo xam ne fekke woo bu muy taa bul ko xuus dégg ngeen loolu ndox moo xam ne bi muy taa fekke woo ko xamoo kañ la fi taa bul xuus ndox mi loolu bu ñu la ko waxee nga defe ne loolu bidaa la waaw yow sa bidaa yooyu foo ko jële billaay boo ko xuusee bu yore oto nga yor xoolal yenn saa yi nga gis benn tali boo xam ne tali bi ci biir dafa am canal ndox mi taa fa yow xamoo fii canal mu ngi fi nit ñi di teggi nga ñëw naa waaw gars yi ay tapet lañ xaaral ma ñëw dugalal oto bi bu dee nit sax yenn saa yi mu dugg ci kàmb tànkam damm wala am lu ko fa jàpp wala daal lam réer fa su ko defee yooyu ay mbir la yoo xam ne foog doomu aadama yi bàyyi ci xel léeg-léeg ñu wax la dara loolu ñu la wax bàyyi ci xel bu baax a baax waxuma la nag bu ñu la waxee bidaa nga def bidaa bi déedéet ndax yaakaar naa ñu ne la ndox mi dafa taa fekke woo bi muy taa ñu ne la bul ko traversé loolu du bidaa loolu dañ laa bëgg a wax ne ndox mi am na lu fi mën a nekk te xamoo ko kon bul ci dugg ak yeneen misaal ak yeneen misaal yoo xam ne du jeex loolu tax mu ne leen dam leen dénk lool rek waaye yàlla moom bu indee mbiram kenn mënu ci dara inil hukmu illa lillah yàlla moom moom moom àtteem moom moom dogalam su dogalee ne da ngeen fay des da ngeen fay des su dogaleen da ngeen dee da ngeen dee su dogaleen dañ leen di jàpp dañ leen di jàpp na ngeen yëg ne alallahi inil hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu atte yàllaa ko moom moom yàlla moom moom laa jox sama bopp waaw wa alayhi falyatawakkalil mutawakkiluun ñiy wàkkiirlu yàlla moomu nañ ko jox seen bopp wa alayhi moom yàlla moom falyatawakkalil mutawakkiluun ñiy wàkkiirlu di jël ay bàmmeel di jox seen bopp di jël ay nit di jox seen bopp di di di di di di nañu jox yàlla seen bopp yàlla téye leen yaakaar naa ne nga dénk sa bopp yàlla moo gën nga dénk sa bopp nit ñu ngi jéggalu kàddu yi loolu mooy darsu tey yal nañu yàlla jéggal njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa